mbokk yi arbitre ngi waaj a sifflé Bébé Garga féete la nekk écurie kaay baax soldat du nekk écurie Bosco Sow ñoom ñaar ñu ngi noonu di lewaatoo Bébé Garga féete la ndi càmmoñ ndaysaan soldaaru yëmbal féete ndi joor kii jiital tànk càmmoñ kii jiital tànk càmmoñ ñoom ñaar ñëpp ay garde normal lañ Bébé Garga dox ci kawam dóor na daje naa coup bi Bébé Garga daje naa coup bi ay xeex soldaaru yëmbal ma ngay fay Bébé Garga jëli na ko jàppante nañu ñoom ñaar ndaysaan jàppante nañu soldaar ak caatu yëmbal ndaysaan soldaaru yëmbal bébé garga bébé garga am na lu muy lël ci suuf bébé garga jël na ko da ko nar a xar soldaaru na ko door ci suuf laa ilaha illallah ndaysaan daan na bébé garga daan na ko bébé garga daan na ko ndaysaan bébé garga